ne sax dañuy changer sémantique bi dina récession économique am na ñoo xam ne dañu naan récession économique boobu gëj nañ ko dund depuis la fin de la deuxième guerre mondiale bi taxoon ñu lancé wu le plan Marshall am ñoo xam ne dañu naan gëjoon nañu dund euh, crise économique bu bu am doyo nii depuis celle de 1929 bi taxoon président Franklin Delano Roosevelt ba jiite woon Amérique lancé li nga xam ni moo doon le New Deal New Deal boobu nag est-ce que c'est adapté à nos réalité économique gëmuma ko ba tax na man du ma wax plan de relance économique mais dama naan plan de reconversion économique plan de reconversion économique partant de trois principes organisation méthode et planification. parce que bu ñu nee relance économique ñun ñu ngi def un plaidoyer pour véritablement le changement des comportements si on se base si contenu bi nga xam ni président wax na. dans son adresse à la nation wax agriculture wax élevage waaye wax wax joo xam ne bu il faut mu gëm ko doxalee ko pour sénégalais doxalee ko moo di la consommer local ba tax na may wax man reconversion économique parce que le président doit montrer l'exemple en étant la locomotive gouvernement am secteur privé national bi ak Sénégal yi nekk les wagons bi xam ne dañ koy gunge pour ñu mën a vraiment defaraat suñu koom-koomu dëkk mais suñu koom-koomu dëkk balaa ñoo ko defar il faut que ñu am un secteur privé national fort yow Oumar Faye wax ma ban sénégalais nga xam boo xam ne dafa dem Maroc roi du Maroc signal ko mu am loo xam ne dafa toll si deux cent cinquante hectares. wax ma ban sénégalais nga xam boo xam ne dafa dafa dem Turquie Recep Tayyip Erdogan jox ko lu toll si trois cent hectares pour mu def lu ko neex. Hmm. wax ma euh, ban sénégalais nga xam boo xam ne dafa dem président Emmanuel Macron jox ko li nga xam ne toll na si cent hectares pour mu defar lu ko neex. Hmm. wax ma ban sénégalais nga xam boo xam ne dem na foo xam ne si Xi Jinping mu jox ay nangami hectare waaye ñun ñaata nangami hectare lañ fi yor te sénégalais bu ñëw pour investir pour liggéey pour tabax pour ñu jariñoo si ñun Sénégalais yi dafa mel ni Sénégalais si boppam loolu la ñu bëggul parce que de ba ba tax ñëpp dañuy jog daanaka di xeex investisseurs nationaux yooyu dafa war a changer mais mi ngi tàmbalee si nga xam ni moo incarner li nga xam ne mooy la prise de décision majeure parce que étant la première institution de ce pays mooy le président de la République il lui appartient il lui appartient je dis bien de changer de paradigme en misant sur notre secteur privé national waaye secteur privé bi tam le patronat là dañoo war a tam changer de cap parce que a UNACOIS Yessal UNACOIS Jonku euh, nga am fële CNP nga am fee nangam nangam on doit avoir un patronat regroupé autour de l'essentiel pour l'intérêt majeur du Sénégal et des Sénégalais ba nga xam ne benn say la ñuy def gis nga Macron buy ñëw bu àndee ñan lay àndal MEDES. Mm-hmm. yaa ngi dégg euh, euh, euh, mouvement des nu ñu koy waxatee sax bu bu tubaab bi boo gisee Recep Tayyip Erdogan buy ñëw Sénégal kan lay àndal secteur privé moo xam Sis buy ñëw kan lay àndal secteur privé am Sall buy suñu président buy buy buy buy buy voyagé club de Paris par exemple je donne un exemple ña ñoo ëppoon. mais communicateur traditionnel yi est-ce que dañ fa waroon nekk di fa way fay fay fay fay waccancaa soxlaw ñu ko foon parce que dafa am leneen loo xam ne moom la ñu mébét mooy dañoo dem wuti xaalis goo xam ne dañ ko andi fii pour tabax suñu koom ndaxam loolu nag euh, mbas bi tax na mu sëngee ñun dañoo war a xoolaat suñu agriculture bi naka lañ koy war a développer tey ji nii waratuñu gis ñun suñuy suuf ay daba ak ay uu war ñu gisati ay mbaamu sëf yoo xam ne ñuy nekk ci biir tool yi war na ñu aller vers la mécanisation de notre agriculture mu nekk nag une réalité évidente et patente hmm. dans le secteur de l'élevage ñaata yoon la ñuy gis ay litre litre litre meew yoo xam ne dañ koy mujj tuur parce que gisuñu ko koy jënd ñu gis ay investisseurs sénégalais yoo xam ne dañuy ñëw ñu jël lii nga xam ne moo di lait national bi nga xam ne fii lañ ko nampee ah jëlee ko si ay nag ay yooyu ñu taxé ko daanaka deux fois plus cher que le lait importé parce que le lait importé daanaka boo xoolee taxation bi mu ngi tourner autour de huit pour cent alors que lait le lait était taxé à hauteur de dix-huit à vingt pour cent te pourtant c'est des nationaux ñoo xam ne ñoo ñëw créer industrie laitière pour mën a liggéey fii nga xam ne moo di Sénégal. Mhm. boo ñëwee tam tailleur yeeg menuisier yi ñoom tam il faut tamit ñu ne ñu dut baaraam parce que war ñu fexe tey jii nii euh, meuble euh, immobilier bi ñuy tabax nii di ko importer ñu war a jël immobilier national di koy gis pare di ko gis ministère di ko gis feneen mais nos menuisiers nos ébénistes no créateurs dañoo war a tam xalaat itam regroupe vers aller vers Umar yow mënoo yor sa benn machine sa benn atelier fële biir Tëngéej di di kàjkàj yi euh, nday dime di la jëndal ay touché ngay andi pourquoi aujourd'hui tailleur yi seen wàllu bopp duñu xool par groupement naka la ñuy mën a fédérer leur force pour créer des PME et des PMI ba nga xam ne seen seen activité dafay gën a. de de l' artisanat des PME. waaw d' accord non fa laay ñëw euh, war ko war ko kii war ko war ko mën a élargir c'est-à-dire que c' est la réflexion moo tax man du ma plan de relance dama naan plan de reconversion économique. te foofu noonu dañ ko war a xoolaat bu baax man du ma nekk si ay position di je suis keynésien ou nangam nangam Cheikh Omar Sang mi ngi wax ay est-ce que dégg nañ leen dans ce pays là malheureusement les intellectuels pour produisent plus de la matière grise parce que tout simplement ay jamono danga nga daan gis professeur la concurrence du contenu des écrits ay professeurs yu nekk département faculté bi nangam nangam ñu nekk si yeneen secteur di produire di jox askan wi nag ne ñun def nañ suñu liggéey askan wi nañu partager notre degré de réflexion waaye jamono ji les intellectuels ou je dis pas les ou en tout cas des intellectuels aujourd'hui ne marchent que pour véritablement des intérêts par rapport à des positionnements loolu moo di dëkk bi donc Sénégal feebar bi tant que fajuñu ko suñu koom dina jafe lool pour ñu mën ko relancer efficacement de manière efficiente mais li mën a am falaay daanale aujourd'hui plus que jamais boo xoolee tey jii le profil même des emplois euh, xoolal si mbas bi boo commencé ndey di mettre ministère nga gis ñoo nekk au devant de la scène matuñu dix et pourtant nous avons un ministre de l'industrie mais est-ce que la personnalité je n'ai rien contre ce ce ministre là est-ce que la personnalité qui occupe le département de l'industrie a le profil de l'emploi par rapport à ce département aujourd'hui stratégique parce que comme Sénégal lan la gën soxla mooy migrer vers industrialisation waaye ministre bi nga xam ne bañ la dénkee ay ay enveloppe nga yore microfinance ñu lay gis Mumbai dajee ay mbooloo ay këjëng këjëng mais buñ la boo ñëwee industrie da ngay wét <laughs> c'est clair alors laataa ñu ñëw ci Ndeye Dimbe madame la ministre am na loo bëggoon yokk. voilà je disais que tamit bu ñu bu ñu waree def euh, suñu plan de relance ou de reconversion comme il dit là je je souscris complètement reconversion am na loo xam ne euh, lu lu lu dëkk yu bari utiliser te ñun mënuñu ko mooy suñu mane mm. te là vraiment amoon suñu mone bopp ci lay am sens dëgg mm-hmm. voilà loolu laa ci bëggoon yow d'accord alors Dimet alors man euh, je trouve que comme li ñëpp wax balaa ñuy wax plan de relance parce que déjà président Macky Sall ci discours am euh, il a annoncé 60 milliards bu ñu war a jagleel ci mbay mi mais déjà comme euh, <laughs> seetlu bi tey mooy économistes yi dégluwuñ leen d'abord pour xam yan mooy secteur prioritaire yoo xamante ne nii foofu la ñu war a sukkandiku ngir relancer suñu économie déjà dégluwuñu économistes yooyu donc gëw ma ni sax ñoom li ñuy wax ñoom seen bopp gëm nañ ko balaa ñuy wax plan de relance économique am na fond de résilience bu ñu fi teg muy 1000 milliards te tey ñëpp xam nañ ni 1000 milliards yooyu déjà disponible ba am na lu ñu doon wax ci mbirum retard de décaissement fan yële passé journal Le Soleil mi ngi doon bind ni sur 300 milliards yoo xamante ne ni dañ ko jagle loolu secteur mel ni éducation gis nañ lu ci dugg matal lu dul 122 milliards et quelques gis nañ retard yi nga xamante ni moo am ci école privée bi boobu ba léegi si ñi ngi xaar aide bi nga xamante ne ni état bi war na leen ko jox te joxu leen ko conséquence gis nañ ko xale yi reprendre nañ ci école privée yi waaye tey jii parents d'élèves yi ñu ngi leen di taxaw ñoom école privée yi di laaj xaalis parce que tout simplement trois mois yooyu nga xamante ne ni jàngalekat yi toog nañ amuñu xaalis état bi lim leen digoon joxu leen ko moo tax ñoom tamit ñu xoj poñe parents d'élèves yi ngi jot seen xaalis beneen euh, privé euh, beneen secteur aussi tamit ñu ñu ñu gis ni tamit foofu am na problème muy wàllu culture gis nañ ko acteurs culturels yi ñoom tamit euh, mobilisé wu nañu di xaar xaalis bi nga xamante ne nii nguur gi jox na leen ko mu mel ni secteur yu bari tey jii nii 1000 milliards yi ñu waxoon sax euh, au départ nit yi dañu yaakaaroon ni 1000 milliards yu disponible la alors que buñ ko doon xayma tey jii nii bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu économie ñi ngi wax ne tey jii bi bu fa 500 milliards tey ci la yam président Macky nag ci wàllu koom gi dégg nañ ko muy wax relance économique mais tamit man dama jàpp ni mi ngi def benn communication boo xamante ne ni daf ko jagleel extérieur pour ñu baal ko ay bor parce que wax na récession te avant muy wax récession dégg nañ ministre am Amadou Hott wax ni nekkuñ ci récession président Macky Sall ñëw wax récession pour man loolu ñun moomuñu ko am na ñi muy waxal pour wax leen ni bor yi nga xamante ne nii ñun dañ ko yoreel waa bitim réew nañ ñu ko baal temps yi tamit dégg nañ ko mu wax ci ay euh, retard ci projet pétrolier ba tudd Woodside li ma ci jaaxal mooy daf ko wax 24 heures après Woodside génn démentir président Macky Sall xam le ni ñoom li leen concerne mooy la ñu waxoon du am benn retard euh, ci mbirum projet pétrolier yi kon tey ji mu mel ni koom gi ñoom dañuy wax nii rek mais wu wuñu ko xamuñu sax fan la ñuy teg seen tànk bu fekkente ne ni président mi ngi wax récession tourné waat di wax ni dina am tey ji ni ay jafe-jafe yu bëri yoo xam te ne dina am ci wàllu koom gi te ñun ñu ko seqal suñuy suñuy suñuy partenaires yi nga xam te dañuy liggéey ñoom ci wàllu pétrole ñu am kàddu yoo ñu tey man jàpp naa ni président li mu bëgg mooy dañu ko baal bor bor bi est-ce que dinañu baal bor wér. alors malheureusement ñu ngi ci euh, njeextalu ko émission bi di ñu bàyyi waale la nga joxe sa dernier mot. waaw xanaa di remercier euh, suñu invité bi ah madame Fatou Ndiaye Blondin am mbégte lool euh, bokkoon ak moom plateau bi remercier tamit baax a baax chroniqueurs yi. jërëjëf alors madame la ministre yow itam gërëm nañu la ci li nga ñu fekk si ci émission Ndoumbelane. kontaan ci waxtaan bi am na solo torop li ñu fi wax yëpp xel du doy. te suñu Sénégal la lii ñuy wax nii yëpp euh, dañoo bëgg dëkk bi baax. Mm. te dañoo xaw réer te xamuñu fuñ jëm. jaaxle mooy ñuy tax wax nii donc euh, bu fekkee ne am na lu ci xaw a dëgër rek ñu baalu ci ax mm-hmm. euh, wante Senelec war nañ ci jóg. <laughs> Senelec war nañ ci jóg. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Ablaye Mbow yow itam. waaw waaw mais di ñaan ñaan yàlla dafa ñu jàmm. Euh, Sénégal euh, vraiment li nga xam ne moo di mbas mi euh, dañuy ñaan yàlla na ko fi yàlla jëlee bu ko fi jëlee itam yàlla na ko jëlee fépp ci àdduna bi parce que àdduna bi boo amee jànn jàmm Sénégal am jàmm parce que Sénégal itam dafa nekk dëkk boo xam ne soxla na àddina ngir mën a liggéey waaye ni ko mag yi di waxee rek ñaan gi may ñaan mooy yàlla nañu yàlla defal tawfiq ak taysiir amiin Omar Talla waaw man de li may wax rek yàlla na yàlla may jàmm yokk sutura ci réew mi yàlla yàlla suturaal waa réew mi ci ci ci mbas mi di wax ni aussi euh, bu ñu toogee certes ay ndaw leen dinañ waxee suñu gis-gis dinañ waxee suñu xalaat waxuñu ko pour euh, ñàkk teggin wala dara mais dañ ko wax parce que dañu gëm ni euh, képp ku fi toog di wax waxaloo sa bopp mais da ngay waxal sénégalais yi nga xam ni seen baat egsiwul fii et que doole jën mooy ndox sénégalais ñuy dajal ñu ñuy félicité di ñu encouragé ñoom ñoo ñu gën a ñaax ba dàll yi ñu sol duñ ko summi te yoon wi ñuy jël duñ ko wàcc jaajëf. professeur. waaw di remercier suñu invité nga xam ne quand j'entends turu Blondin bi. Mm. dafa am fu bëri fu ñu yóbbu ci histoire ndeysaan. Mm-hmm. mu nekk en voilà mu ngoog il nous <laughs> plaît mais une grandeur aussi du Sénégal. c'est que di nga dugal mbow nag ci histoire. waaw voilà <laughs> waaw dama koo moo tax moo tax <laughs> man dama cee euh, professeur dama cee man dama cee liggéey. waaw ay ati at. si famille di Blondin dama cee liggéey ay ati at. Mhm. ba daaw dama liggéey ba pare dem jàkkaarloo kii nga xam ne moo di docteur Diallo Diop. Mhm. di nekk euh, secretaire général Rassemblement national te ku ne RND. xam ni c'est l'héritage de Cheikh Anta Diop te ku xam Cheikh Anta Diop xam ni c'était le constructeur du Sénégal intellectuel mm -hmm. mais d'engagement citoyen et patriotique mhm. mais également de l'Afrique mm -hmm. donc liggéey googu boo ko si liggéeyee bu ñu tuddee Blondin alaa kulli am na loo xam ne nu ngi koy yëg waaw vraiment di ci profito di di nuyu Diallo Diop parce que docteur Diallo Diop dafa mos a nekk sama xarit sama yaay entraîné hôpital mu faj ko sama doom heure bu demee hôpital daf koy faj nit ku ma bëgg moom ma njëkk yóbbu ceytu en 2001 mais may terminer toujours rek euh, ci parce que ku nekk li nga gëm di ko wax ci feebar bii ñu nekk bu ñuy respecté mesure barrière yi mais Mouhamed ñu dellu ci sa turandoo ak lañ ko waxoon Sénégalais yi nañ di saraxee Sénégalais yi nañ di saraxee Sénégalais nañ di saraxee parce que sarax dafay wàññi musiba ak balaa bu ñu ko négligé lu mu metti metti metti metti amatoo woon cent franc nga doon am léegi ngay am vingt cinq mais di am dërëm boo xam mais borom ku ñuy sarax muy warax nu muy génnee sarax waaw loolu Pa Matar waxoon na ne la ça rek xam nga saraxee mun nga dugg sax ci oto gis mag moo xam ne nii dafa bëgg a paas nga ne ko bàyyil ma paasal la cent franc loolu dafay doon benn barrière mystique ak spirituelle boo xam ne nii daf ñuy dumbale ci corona kon sama gars yi mhm. dee leen saraxe yàlla moo ko wax ci suuraat 64 ba dee leen saraxe jërëjëf professeur Omar waaw di ma di nga ma may tuuti xam naa ne temps bi jën mhm. parce que l'histoire de Ndingler daf ma préoccupé mhm. en tant que sénégalais euh, man du ma xeex sénégalais au profit d'un étranger je ne le ferai jamais dans mon pays je veux à chaque fois avoir un chef d'État buy jàppale ki nga xamante ne mooy sénégalais bi bu fekkee ne mën na ko sérieux taxaw di liggéey ce qui se passe avec l'histoire de Ndingler fi ñu ko yóbbu dafa ëpp trois cent soixante cinq hectares madame Blondé moom lañ jox alliance groupe marocain ah jam Diamniadio dafa leen bàyyi pour ñu construire foofu des logements rien n'a été fait pôle urbain bi da dégg ñu wax coow dégg nga ko yow hmm. ñaata hectares lañ jox si ne indien yi fii da dégg coow des hectares de des hectares avec toutes les conséquences qu'il ba pare non seulement foofu jox leen ñeneen terre yoo xamante ni c'est pour des constructions de logements di ko jaay à des prix exorbitants personne n'en parle pour l'histoire de Ndingler un Sénégalais qui s'appelle Babacar Ngom ñëpp gis ko parce que il a montré ses qualités avec Sedima c'est ça aussi dalay wax moom fi mu jaar ba tey li mu am kooku du fierté pauvre devenir riche ça doit être une fierté on doit te mais dans cette situation pareille du ñu toog waxtaan trouver une solution à ça pourquoi tout ce tintamarre alors que li mu am yëpp tey boo ko comptabiliser woon tey di ko jaay dix milliards du ko weesu et pourtant il y a le bateau qui est là de cent et quelques milliards par an pour les cinq ans va faire plus de cinq cent milliards ce qui parle pourquoi il ne parle pas de ce problème li mu am nii xam nga c'est pourquoi li ñu am nii xam nga xam lañ ko bëgg mu ñu ko valoriser nekk ko en phase avec les agriculteurs qui sont là mu seet na la leen mën a accompagner mu accompagner leen ñu ànd liggéey mais KFC xam nga luy KFC Ahmed KFC si réew dafa mën na nga ne nga da ngay organiser coupe du monde si réew day yëkkati réew moomu da ngay am sa suprématie day gën a yokk KFC ça n'existe pas dans certains pays en Afrique il y en a pas c'est comme McDonald's bi ñu ngay dégg yooyu fu ñu am dafay créer lu ñuy wax une alimentation standard quand tu viens au Sénégal tu n'as pas besoin de ceebu jën ni de damadaar ni de mbaxal ni de autre chose nga ne man am naa foo xamante ni ne mën naa sécuriser sama bopp je vais dans le dans dans KFC. waaw mais yooyu bu amee ci réew ñu créé KFC indi ko fii ci réew mi ñu toog war a liggéey il y a un minimum. parce que c'est pour nous les Sénégalais. c'est pas pour personne nañu bàyyi bu problème amee ñu bëgg a jël Sénégalais bi. di ko teg foo xamante ni dafa ñaaw boo déggee démb Babacar Ngom nga xam ne c'est pas parce que mënul jël suuf si joxe ko mais fi ñu yóbbu xeex bi moo garaaw et pour son honneur et pour l'éthique et pour la justice il était obligé d'aller loin d'accord mais jaru ko très bien nañu toog waxtaan mm-hmm. trouver solution xam ne lépp ku ci bénéficier wu ci Sénégal gi la jëm parce que ñiy taxaw di na nañu wax si yeneen scandale yi ñoo gën a bëri fuuf te duñ ko wax. c'est clair dégg donc il faut ñu xoolaat yooyu. dégg nañu ko ñu bàyyi la nga tàggu tawaale. donc maa gërëm. waaw di sant di gërëm soxna si. que li yombul soxna si jàmbaar nga. te lépp looy def da nga koy def ci ñu xamante ni ne c'est d'une manière citoyenne parce que waxoo pour seet lu neex ma sàmm wala lu neex ma dem li ngay def da koy def te Sénégal tax et on a besoin de ces femmes pareilles. ñu xamante ni chaque fois boo leen soxlawee du ñu xool na ñoom dañu am hauteur wala dafa am fu ñu toll moo tax dañ naan dañuy ñëw wala du ma togg ak diw si plateau wala leneen parce que man gis naa ay opposants yoo xamante ni léegi c'est des stars dañu yaakaar ne ay stars lañ te ñu star le rôle que certains ont joué le rôle que le professeur Lô a joué le rôle que Mbow a joué ils ne l'ont pas joué ces gens bu ñu leen invité ñu war a mën a ñëw wax bu ñu wax kan mooy ne bi wala kan la ñuy ñun li ñuy wax Sénégal moo ñu ñor dañuy seet mu ñu wax ko lu ñu mën a redresser redresser ko lu ñu war a rectifier ñu rectifier ko donc ñu ngi lay gërëm di la te vraiment ñu gis ne chaque fois bu ñu la soxla wee nga ñëw yal na la yàlla jàppale ñu ngi koy gërëm ni nga ko waxee di gërëm Mbow euh, Cheikh Omar Talla Jimé professeur euh, Omar Faye yow itam gërëm nañu la gërëm bu baax a baax également